ànd ak ki dàq tardé si moom dàqul daa tardé si matinal bi moo dàq tardé bi muy ndela mais comme sama dom baye la coow ci bul nañ baye bu sedd da ngi affaire dom baye laay dawal moo tax. non mom il faut nous sanctionner hein wax semaine bi non mais c'est vrai que semaine bi démb la commence jaaxaloon na pourquoi semaine bi tout tuddagoo le mot sanction. non il faut nous sanctionner mardi bi nga doon xaar. faut qu'on la sanctionne. <laughs> alors non tardé dama xam mënuma comprendre comme mu lu est là fi a def alors tey maa di 11 juin den fàttali ni année, ñuy seetaanee télé ah, noonu ngeen ñu mën sur nos plateformes digitales sur Facebook c'est GT Sénégal sur YouTube GTV euh, Sénégal et sur l'application TikTok euh, Global Télévision Sénégal ça nous permet de nous nga xamante ne moo euh, TikTok bi alors Mame non def na ko suba si. waaw ñoo ngi sant yàlla. bu baax naka wàccaay tabaski bi. ah waaw bu nekkoon weeru koor ñu ne wor sànni. waaw waaw comme comme comme comme kër yëpp rek. Ah. ñoo ngi ñoo ngi ah. Ah, lu lu mu fi fekk rek ñu géré ko noonu. lu mu fekk rek jëlaale ko. <laughs> ko waaw di eh, ñaan yàlla xar yi gën a yomb nag. amiin. soble beeg yooyu moom dégg naa xaw naa wàññeeku tuuti moom. soble bi moom soble moom kii waaw waaw soble parce que gis naa sax ay mévente yu bëri. Mhm. bi yi war a dem jënd mhm, mhm. yi tamit dañuy ñaan yàlla xar yi gën a gën a gën a wàññeeku. am na ñoo xam ne ni xaar ba la veille ñu soog a jënd xar waaw parce que ku nekk tamit. gis nga président sax xaram 150000 la doon waxaale. waaw waaw ba mu ñu mujj ko ko jaayee 160000. ñun suñ amee xaru 100000 sax baax na wala 75. <laughs> <laughs> waaw waaw. <laughs> te tey sax wàllum xar la ñuy waxtaanee waaw waaw eh, ah, tey xar la ñuy ak suñu invité tey xar la ñuy waxtaanee ak suñu invité bi. xëy na ñoom ñu joxal lañ truc et ah, astuce yi waaw peut-être ñu jox ñu ay ay ay. a xar waaw ay secret ci affaire bi. <laughs> mi ngi noonu Mame Gor euh, plaisir ñu àndaat ak tey ñaaw le leader noo def. waaw maa ngi lay fay maman. yaa si jàmm. alhamdulilah maa ngi si jàmm waxam a baax. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la ziar baax. Ah. nuyu Mame Gor. ak suñu invité bi monsieur Sow. Mhm. ak Ben Label maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. Eh, di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toog di seetaan seen émission mag bi di bonjour Sénégal. Mhm. commencé si waa ngi new nga xam ne duñ ko tardé pratiquement. Euh, Kër Massar yëmbal benn brak. maa ngi nuyu ñëpp euh, di ziar ñëpp di nuyu aussi famille Natange di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te di ko sàkku si yéen. suñu doom de nuyu woo ko. Malick Kade waaw Malick waaw moom moom nee naa la du tardé lii. parce que heure bi moom day fekk moom day toog biram ñu koy day toog biram tegale tànkama teg téléphone am jàkkaarloog moom bu émission jeexee nag mu doog wàcc sur le terrain Malick ñu koy nuyu Malick baax a baax bergerie Yaaw allah ah xar bergerie pour man doom lan la tuddee sax Ah, waaw daxa doom doom la doom doomu xar la waaw doomu xar sama turandoo naa ko naa naa naa la ko def daañu ànd dem sama parce hmm? euh, ñu waajal euh, inauguration bergerie bi xam dañoo defar bergerie bu bees d'accord donc xam naa ne après tabaski lañ koy inauguré te xam naa bu ñu koy inauguré yow am nga si wàll mhm. équipe Bonjour Sénégal lépp sa am nañ si wàll caporal moom jege nañu moom day dox dugg si biir kër ga ndax ñoom ñaar sorante wuñu ah, donc boobaa ñu préparé ko rek équipe Bonjour Sénégal bi dem ànd ak euh, équipe bi yëpp. yóbbu suñu caméra dem seet yaa waaw incha allah. <laughs> alors naka fanaanu dara li temps yi. waaw yaa koy gérer mais man <laughs> taamu naa euh, fanaan quoi. man d'habitude depuis ba mu nekkee ñaaw liggéey yu may def lépp liggéey guddi laa koy def parce que man je fais les deux la fois guddi gi bëccëg bi aussi damay fonctionner. kon baax na macha allah toujours rek liggéey guddi moom taamu naa ko mais boo xoolee bët yi. da nga yaakaar affaire commencé def effet. <laughs> en tout cas bon courage des des bëreetul. waaw jeex maa ko doon wax tout à l'heure euh, tey nag euh, invité bi ñuy dalal maam Gor suñu jaam la. Ah, ah, waaw ak sant sant bi nag moo naqari suba teel bi moo tax dama doon hésité pour tudd sant bi suba teel bi mais bon comme nee na ma poche yi dasaa defaale xar yu bëri moo tax bàyyi ñu nangu tey. durant émission moom mu nekk kii bi daal. ah waaw non instant émission bi nan ko bàyyi mu nekk stratégie ah, waaw stratégie la. <laughs>

ci wax rek bi nga xëyee naanu soow. sama mbokk pël yi kat léegi ñoom soow bi dañ koy dañ koy kii dañ koy denc. Ah, kon nga war a xam kenn yónneewu ma suba yaa ngi ni bëgg a mer kon nga war a xam ne sama sant bi neex na bopp. non sant bi sant bi kooku boo xëyee a xam ne sama sant bi neex na bopp. kon ñoo ngi sant ñëpp di ñaanal yëpp jàmm te nuyu wax Sénégal yi. Mhm. di wax euh, yàlla nañ yàlla may matini jàmm may ñëpp. amiin alors mm-hmm. euh, lan moo tax a jóg ko euh, euh, syndicat des éleveurs de la nouvelle génération. Mm-hmm. amaa ñu yaatal waxtaan bi des éleveurs de la de nouvelle génération li ko tagg jóg muy xam nga àddina day dox. Mm-hmm. comme que àddina day dox. doomu aadama yëpp di dox ci ànd ci àddina. éleveurs yi ci lañ bokk. parce que ay doomu aadama lañ di yor secteur boo xam ne secteur clé. c'est des entreprises ñoom ñoo ko moom. d'accord di contribuer ci développement seen réew wala ci àddina bi yëpp élevage def am solo parce que réew bu avancé développé ci monde bi rek élevage moo la développé parce que dafa nekk secteur boo xam ne amul arrêt mm-hmm. du session encore moom dafay fonctionner rek amul arrêt mm-hmm. kon bi ñu demee suñu mag yi ak li fi nekkoon Sénégal ni ñu doon sàmmee bu jëkk gis nañ àddina bi mu ngi évoluer mm-hmm. technologie bu bees mu ngi ñëw ay jéegu yu bees ñu ngi ñëw ak ay yu bari yu nga xam ne séeréer yi xamuñu ko woon ah léegi nag xale élèves itam ñu ne tam il faut ñu sét nan lañu def ba ñu sét adine bi fi mu toll. Mhm. ñu yobbu élevage bi toll na foofu. loolu mooy indi nouvelle génération ba adine tuk syndicat bi dafay dund rek chaque génération ñun sax toll nañ ci fi nga xamné ñu ngi war retirer jox xalé parce que mhm. chaque moment. dafay am loolu moo tax à 2007 ñi xalat na génération éleveurs bi bees nañu dugg ci adine bi mhm. sét élevage bi ñu yor li ci baax ñu téye ko mhm. mais élevage yi nekk ci monde bi tam li ci gën a baax ñu indi ko ci biir Sénégal mhm. ñu mënu ko boole lu baax nekk ci Sénégal seet nan lañ ko gën a améliorer pourquoi pas sax du ñu dem sax bi nga xam ne lépp la bëgg la bëgg rek ci biir élevage dangay tapp internet rek nga commandé ñu indil la ko mhm. loolu mooy indi nouvelle génération macha allah mi ngi noonu ñaaw tey moom mooy sa invité ci kanam tuuti daañu gën a yaatal waxtaan <laughs>

Euh, tay mom ay conseil à andi pour parce que ci tabaski lañ jëm. Mhm. légui dama andi ay conseil pour affaire consommation de la viande. pour euh, genre prévention pour fàttali nit ñi ni que excès de consommation de la viande bi yan conséquences mën a indi ak yenen daal. mi ngi noonu loolu dina soxal sama mbokk xanaa loolu fayee sama mbokk non non suñu mbokk pël yeeg joor laa yëpp balaa ñu bëgg si tabaski la merci beaucoup Ndella <laughs> alors euh, Mame Goor heure bi su jotee dañuy euh, xool li nga xamante ne euh, tey moom dañuy waxtaanee ci six minutes euh, chrono on va commencer euh, on va commencer par le sport entre guillemets sport et études on va dire même mhm. euh, Maroc un sujet d'examen porte sur les actions de Sadio Mané dans son village natal de Bambali <coughs> waaw maman sujet bu am solo la mhm. parce Sadio Mané dafa nekk nit koo xam ne dafa représenter lu rëy Sénégal mhm. Euh, nek na fi ballon d'or ñaar yoon la. wa comme El Hadj Diouf. Euh, nekk fi championnat Angleterre Liverpool. Euh, am fu toll fo xamné ni équipe joueur Sénégal mosu fa toll. jël aussi coupe du coupe d'Afrique, Afrique. coupe d'Afrique Afrique mu joué ci rôle bo xamné ni nii rôle bu rëy rëy rëy donc xarañ xarañteefam ci football ak ci limuy def loolu mom kenn wérante wuko mais Sadio Mané li ko gëna xam aussi moy hmm, c'est c'est une personne aussi exemplaire mm-hmm. maanaam dafa xarañ euh, xam li muy def ba pale rëyul mm-hmm. li ñuy wax naan rëyul réewul mm-hmm. euh, nek exemple nek seen dëkk euh, fàttewul sen dëkk di fa def lo xamna ni euh bon boy xol histoire Sénégal voilà histoire même Afrique ak monde bi ñi def lim def bariwul sa dëkk nga dem yóbbu fa stade tabax fa stade tabax fa ay juma tabax fa ay école fexe ba station nekk fa fexe ba dëkk boo xam ne nii euh, c'était dans l'anonymat bambali ñun ñu nekkoon Sénégal ñun ñu bëri xamuñu ko woon léegi euh, dëkk ba monde bi yépp xam nañ ko bambali kooku exemple boo xam ne nii la euh, dañ ko war di ériger mhm. de telle sorte que sénégalais yi ñëpp ak xale yi di di roy ci moom. Mhm. parce que mënoon na dem rek am beew mais beewul. Mhm. fàttewul ay racinam fàttewul fa mu jógee. Mhm. Euh, ba pare sur le terrain da ciy wane jom joo xam ne nii euh, lool kenn naat tabtewul ko. loolu moo tax bu ñu ba fu dëkk bu mel ni Maroc def sujet examen. dugal ci Sadio Mané. loolu suñ fierté la ñun ñun ñun ñun Sénégalais yi yëpp. fierté la ñun ñun africains yëpp. Sadio Mané euh, bravo. man ngay tok fi di wax wax wax c'est un leader quoi. Mhm. un leader un leader li ñuy wax leadership transformationnel. Mhm. moom moom loolu la incarné. Mhm. parce que li un leadership un leader transformationnel moy leader bo xam ni day joxe exemple. Lum mu def rek fum jaar yoon lay doon. lum def ñeneen ñi dañ koy toppandoo. gis nga boo xoolee sax équipe nationale de plus en plus li Sadio Mané di def ñeneen ñoo ngi koy jëm a def. Euh, bu njëkk équipe yi buzz la ñu nekk ak buzzisme ak yenn détails ak yooyu mais Sadio Mané leader bi mu nekk. loolu moo tax même bu waxul defal nit ñi ay koi wahal, ñoo koy waxal mhm. ba pare ñu di di muy def mhm. donc Sadio Mané dañ koy remercier di konyan mhm. ñaan muy yàgg fi lool te parce que am na fi njariñ bu ko ne man ma euh, ku mu neex yàq xaalisam ne ku mu neex nga toog ci gaz mais moom daanaka moom imam là quoi. C'est un leader, c'est un guide, c'est quelqu'un qui est, qui est bien euh, pour la jeunesse. Et puis, euh, par, parcours, fan de li ñuy wax self made man la. Mhm. parce qu'il est parti de rien du tout. seen dëkk amul woon dara. Mhm. moom ci boppam dafa góorgóorlu ba toll fi mu toll. Mhm. jàppale nan ko bon jàppale mënta ñàkk. mais lu ci bëri moom moo ko defal ba ba toll donc Sadio Mané vraiment euh, lii ñu ko defal examen. ñu sujet examen au Maroc. di war nañ université il mérite ñu ñu wax docteur honoris causa ci université de mhm. Dakar université sénégalaise parce que c'est un exemple parmi les exemples au, Sénégal d'accord non euh, euh, Sadio Mané est un exemple sur les terrains mais aussi en dehors du terrain mhm. wow euh, je pense que Mame souligne les points les plus intéressants Taï mon nañ référence là Moi, je me dis toujours Sadio Mane il a joué un rôle d'un président

dañ doon euh, euh, euh, ñaan ñu amaat ku mel ni ma Mané wala soit mu dellusiwaat. Mhm. parce que génnam sax neexul leen woon comme c'est-à-dire que dafay marqué am bu jógee si loolu aussi ñu ñëw si cas social yu mu def vraiment mu nekk acte boo xam ne tey bëriwul si ay anciens internationaux yu koy def. Mhm. am na ñu ko fi jiitoom gis nañ leen mais tey moom bu ñëwee loolu nag dara may ko lu dul jaar-jaar c'est très important. Mhm. dafa am fu jaar am lu mu dund ba ko yàlla mayee benn doole bi mu ñëw tey dimbale ñi nga xam ne tey ñu ngi si yoon boobu. ñu bañ a dund moom lu mu dund. nekk na nit koo xam ne tamit il est très humble. ñu mhm. man bañ demee ba gis moom téléphone boo xam ne dafa toj. <laughs> non jour boobu au niveau international ñëpp ko doon def à la une. comment un jour boo xam ne c'est un milliardaire yor téléphone bu toj c'est-à-dire que moom àddunaam dara sonalu ko. Mhm. loolu nag mooy nit waaw mooy mais euh, au niveau de Maroc suñu la ñun. Mhm. en tant que sénégalais mais exemple aussi au niveau d'Afrique. Mhm. vraiment ñu koy ñaanal yàlla may ko yeneen trophée mhm. so alors on était en train juste de parler encore de ça rapidement par rapport le fait que qu'il soit un exemple en dehors du terrain ba nga euh, sujet d'examen, baccalauréat fële Maroc euh, sujet bi si moom lañ par rapport nga xam ñu koy def Bambali. waaw xam nga kaw kaw bu mel ne si man buñ ma laajee ci kuy football. Mhm. xëy na man dinaa wax ci côté immunité bi. Mhm. Mhm, Ngom def wax fii il est bi laa la parti avec beaucoup de choses. moom moo départ ci li gën a am solo. parce que matériel c' est des fii lañ koy fekk dañ koy bay fii dem. moom nag li mu fekk seen dëkk. c' est des milliards honneur ak dignité. loolu mooy loolu moo gën am importance. Mhm. kon kenn man mënuma comprendre nit wax Sadio Mané il est parti à zéro. Mhm. non mhm. li muy def c'est des bonus. il est parti à beaucoup de choses. fi mu judd. nekk doomu aadama am dignité. am ngor ci boppam xam boppam. xam doomu aadama du dara. dafa jeex loolu moo gën am importance. Euh, Libéria yaakaar na Libéria amoon na président Zoyor kon Sénégal dafa mérité sax Sadio nekk président Sénégal pour lan pour san Sadio ñu jàng ci moom lii mu nekk ñu jàng pour sénégalais sans comportement parce que li muy def man waxuma sax li ngay wax ay ballon en roi yooyu déedéet yooyu yëpp du dara ah def na lu nga xam ne benn jour dafa wala man bu dee am na ko ko def na ma kenn nit woon parce que tudd leen sax hôpital bi mu def seen dëkk ak leneen waaye nag moom dafa am xol am dignité am na respecté ci boppam parce que nit da ngay respecté sa bopp nga door respecté ñeneen kon li li Sadio Mané di def li ñu koy tuddee maru il a mérité plus que ça mhm. te den am loolu parce que yàlla daf lay fay li ngay def mhm. te moom li muy def exemple bu nga xam ne président sax def naa bu rek dem wax ngeen fi président xëy na dinañ si ñëw ci kanam mhm. am na lu mu jindee lu nga xam ne lu am importance ci xar donc Sadio Mané képp ku nga xam ne te yaa ngi ci àddina bi yaa ngi def immunité yaa ngi def yaa ngi def comme ni yonent bi doon def mhm. mooy wàcc sa bopp la sa bopp xam ne yow doo dara mhm. dangay fii jaar rek mission dangay dem Sadio Mané yëpp def ko capitalisé di indi na ci réew mi ñaar yoo xam ne kenn indi ko fi mhm. Coupe d'Afrique beneen bi li muy def ci dëkk yi def ci àll bi amul benn jour bu ko fi mos def kon vraiment dañ koy ñaanal yàlla gudd fa ku moom daal bu ñu ko mënoon am mu nekk président Sénégal dana baax. <laughs> incha allah même bu dee après 2029. Uh-huh. am na solo am na solo monsieur Sow alors la un mot rapidement par rapport ak euh, par rapport ak Sadio Mané avant ñu jàll dans un sujet. bon comme comme ce que tout le monde a dit rek uh-huh. Sadio Mané moom je pense que référence la. ñëpp ñëpp ñëpp gis nañ ay actes sociaux yi nga xam ne moom la nekk di def et que lu loo xam ne nit ñi ñëpp rafetlu nañ ko buñ demee tey ba li nga xam ne mooy sujet baccalauréat sommes sax Sénégal mais ba Maroc ñu que tout sujet de baccalauréat ça veut dire que moom international carrément et que euh, au-delà de même Sénégal yeneen dëkk yi tamit xam valeur am euh, volet social bi gis nga ne la nekk di def ci que ce soit infrastructure xaarul dara que ce soit hôpital yi ak école denrées alimentaires yeeg lu

Euh, man maa jël prétexte waa Régis rek. non kat maa war a am. non Issa ak Moussa Issa Moussa. tey Issa ak Moussa tey Issa au carré ak Moussa ñoom. Moussa day mel day kii de day daa noppi rek mais day day wax de. alors on va passer au deuxième sujet Mame Gora euh, on va parler de démocratie Sonko face à son opposition. waaw loolu moom c'est un sujet purement politique. Mm -hmm. Euh, dañuy wax ci démocratie euh, premier ministre fusible la maanaam moom mooy dem au charbon président moom day toog jàpp jàmbaram gis nga Sonko dimanche euh, grand théâtre fa la parce que dimanche c'est important le fait que mu choisir dimanche c'est important parce que dimanche kenn du liggéey le fait que Madame Fassol fa sol chemise pour premier premier ministre. Mm. dafa pour Sonko c'est le leader de Pastef. Mme Momodi de de Pastef mm. euh, basirou Diomaye